man bokkuma ci taaw yooyu nekk ci kër tekkee guñ fa dara seen raq di leen dépassé Lalla bu fekkee loolu moo tax muy abusé romb ma may wax ak moom bañ maa faale san ne marche sama raq la yàlla moo ñëwagul rek mais ma jom romb na ma léegi wax ak nag moom faale ma gëñ na maa nuyu sax suba wax ci mbaa ma fajal ko sama bopp te xam nga ni ma koy faje yàlla yow yëgoon nga ne Miss Gueye daf doon ngoroog junior kon junior daal dangeen ko bàyyi mu dugg ci kër gi di def li ko neex parce que lan certes am na ay suu mu fi dugal mais man kon ba ma dofee comme ni ngeen di wax kër gi sans loi la woon junior li bàyyam def ci kër gi dañagu fi gàcce googu moom mu ñëw fi di mélanger ñaari sër wala tax nga bàyyi mu jàll mooy bokkuñoo ñoo ak Miss Guèye Baye bu ñu bokkul bàyyi ñun dañ koy considérer comme suñu ndax suñu kanam la judd ñun ñoo ko yar mais Junior pareeguma ak moom. mu di loolu doon nga ci xalaat. lan laa ci waxaat léegi. lii ma la wax nii diggante Miss Guèye ak Junior fii ma toog laa ko yëgee léegi léegi la ma ko laal yaa wax. waaw mais ba mu la ko waxee. musuma koo naanee ndox. ba mu la ko waxee yow bu rek loolu mën a dara. lii awma ci xalaat bu bari lu dul génial la toog bañ. loolu rek nga yow fii laa toog nga taxaw fii mën la xel bu jëriñ lu dul xalaat nañu xalaat am lu ñu teg ci loxo laal yaa balaa ñu ko ñaan. maa ngi def loo ma yorewul walla sama xel dem na ci loo ma yorewul waaye lu mënta ñàkk foog mu am am naa ci xalaat ndax loolu yaa daa bokk ci man. nga ba toog ci chaise. cër yëpp dara fonctionné tu ci yàlla ngi noonu sarangoon yi di sotti rek dara mënul fexe ba mu arrêté te loolu yëpp di ay gaaf nga gental kër gi gaafal kër gi xéewal bu doon dugg ci kër gi rek ak cause sa bon xéewal boobu du mooyu nañu saa yu ma yeewoo yam ci rewu rek chaque jour malheur di dal sama kaw saa yu ma yewoo yam ci yow balaa maa teg sama bopp bi ci lal benn malheur dal sama kaw man euh, am naa surprise ci jisaat leen def naa ni tànku jàmm ngeen dox ndax bi ngeen fi mujj ñëw indiloon ngeen ma këyit la ma ca waroon yépp def naa ko. ci kaawu kamu la woon ma dajale sumay bien jaay ko fay ko xaalisam yàlla baax na yàlla jeexul. mais seen visite tey bii moom xaw na ma jaaxal ou bien je me trompe. Guèye euh, li wax sa diggante kam yëpp dëgg la li ci waroon am yëpp def nga ko waaye danga nga yoreel banque xaalis te du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon banque yónnee na la ko lettre am na six mois fayuloo banque sa kër gii nga tayle woon. banque mettre ko en vente sunu client jënd ko muy Abdou Karim Manga loolu dañ woon pour wax si la ko. monsieur Guèye ñoo ñu fi pour génne la tey dañ ñëwoon rek wax ni la loo amee ne six mois pour nga uti feneen foo dëkk. jaaxal yow bu ñu ko ñu demee ñu rendre ko compte. merci beaucoup monsieur Guèye Dalia. naa def. maa ngi yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. waaw dama laa soxla woon. ma waaw yow laa soxla. egg si. Dalia comme ni ma la ko waxee rek tey seetuma sa yaay yow mii laa soxla ndax sa digganteeg junior dama bëgg ngeen rafetal ko rek. ngeen waxtaan ndax nga delloo si ko junior étape bee mu ne du ndey du mbokk du xarit kenn mënu ci dara ku dul yow miy toog su ma sañoon nag nga jóg ñu dem nga waxtaan ak moom ndax jën na bii avion ba pare nee day dem laaj naa ko fu mu jëm mu ne ma xaw ma ko taman bu ma xamul fu mu dem ba mu dem yoonam man fan laa jëm benn bii rek laa am laaj yaa dimbali ma ngir yàlla nga jóg ñu dem nga waxtaan ak moom. man de àdduna bii sax dama cee jaaxle boo defee lii ñu ne la lee nga def lee ñu ne la lii xalaatu yow yaa doon toog fi di ma ñaan njëkk ne naa bàyyi sa doom nga ne sama diggante ak moom dafa impossible. tey nga toogaat fi nga ne mën naa dem wax ak junior mun du lu may mën te junior sax sama diggante ak moom moom mën a tutane ndax danoo waxante lu ñaaw ba pare te lu ñaaw loolu mën a tuta defara defaruwaat junior nag li mu yëg nga yëg ko samay parents yëg ko bu ko neexee sax na deew ak moom bu ma ko wax ay ndax sama diggante moom moom jeex na tàkk waxal ma ko loolu ne ko yàlla xañ na ma lépp rek ba mu des xolu muñ muñ moom mën naa ko bu ma doon dee sax di souffrir di dee sama kawlal du tax ma ñëw di wax ak junior leen lu jëm ci sama relation ak moom kon nag bu yoboo nga noppaliku rek te xam ne lii nga may ñaan mënu nekk Laliya bu dee li ngeen waxante yéen ñaar yàgg na ci diggante bu ñaan ñaan yu bëggante de loolu du dara baax na ah, waa ministère des mines ñoo envoyé woon benn projet euh, ce qui con euh, le pétrole et le gaz euh, bi yëpp gisuma benn personnel bu qualifier si liggéey bi à part benn CV bi ma euh, joxoon pour naa ko xool liiraat naa ko sax d'ailleurs sànq c'est la seule fille que j'ai vue nga xam na ni moo qualifié si liggéey bi euh, bu dee ni am nga ay contactam ba tey pour nga recruter ko le plus tôt possible pour liggéey bi si yàlla. tu as été euh, amoureuse. une fois ba léegi sax. tu ngeen faral di jàppante di xuloo et tout ça ça ça ça ça mal ça fait mal non. pourquoi cette question monsieur. parce que je veux juste comprendre ce J'ai pas la tête ici. Je souffre énormément. Tu sais pourquoi Boulrous, tu es ma secrétaire, mais tu es une sœur aussi, n'est-ce pas Ouais. J'ai besoin de parler avec quelqu'un. Je ne suis plus moi-même. yow sax war ko seetlu tu es ma secrétaire donc seetlu nga ki ma bëgg diggante bi métti lool maanaam amul avenir en fait amul suite je l'ai quitté et malgré moi je l'ai quitté ce n'est pas parce que je l'aime plus ce n'est pas parce que jikkoom neexuma wala leneen wala leneen mais amul mujj et j'en souffre énormément. C'est ma vie en fait, la fille là. mënuma concentré wu ci liggéey bi chez moi même su dans la ville dans la rue et tout donc j'ai beaucoup changé je voudrais juste comprendre c'est des réactions normales wala c'est pas normal Euh, dama lay fekk si li la wax euh, si li nga wax monsieur Ndiaye li nga wax lépp dëgg la mais dara xëyul xëy rekk sotti te quand tu parles d'amour y a des hauts et tey day neex suba mu naka yéen sax boo leen bëggee mu neex am na ñi nga xam na ni duñ leen si bàyyi et vous si vous laissez tomber parce que voilà nit ñi ñuy wax lii dañuy wax lee wala du am mucc c'est parce que li nga bëgg gëmoo ko mais boo ko gëmee rek mu sotti. ki ma bëgg li tax mënuma juboo ak moom c'est pas facile comme tu le crois du sujet verbe complément dafa day wax mais bon. xale nga waaye lii nga wax tey mën ngaa bokk ak excusez-moi monsieur Ndiaye mais da nga souligner léegi ne li leen boole je me mêle pas de votre vie privée mais euh, dara yombul sa société bi rek war na la doy exemple xëyoo xëy rek muy lépp yomb. d' accord CV bi ma la joxoon elle s' appelle comment encore. Euh, c' est mademoiselle Lalia Gueye. la fille dont je suis amoureux s'appelle Lalia Gueye la même personne. mais c' la seule fille qui est qualifiée pour ce projet. Sierra. oui monsieur je vais trouver une autre personne jëlal dossier dossier Lalia Gueye.

semua itu sama aduna dama bëri yu ma ci naqari ay mbir yu dajaloo sama kaw perturbé sama àdduna ci mbir yooyu dafa am benn boo xam ne duma ko accepte mais bi nga xam ni mën na ma détruire naa ñàkk sama liggéey aw ma ci problème na yaa dem aw ma ci problème waaye daf ci am boo xam ni si jamais mu dal ma dee moo ma ko gënal muy perte la yow man seetlu naa ni maak yow ñu ngi am distance nga wax ma wax bu ma jaaxalte te ma mooy papa est-ce que ma jur miis man mii jur xool ki tàbb ci sama xol ma tuddee la ko jur la nag ci farata nga jël ci moom xeesaay ak rafetaay lool jël ci man fulla ak jom ak caractère kon sama doom nga maa la jur waaw si jamais tourner le dos wala ma nar la ñàkk man damay rey sama bopp parce que boobu moom du ko accepter nga bàyyi ci xel bu baax may sa papa may sa xarit dalalal nga sama xel bu baax ndax duma la ko nëbb de dem naa ba ci mu Modibo laaj ko lan lañu bokk pour wan la ni lii daf ma ñor tey nag liñ nga ma wax nii yépp kontaan naa mais nag su ma sañoon pap dangay xool noo fexee dajale sa njaboot nga andi Laliya nga andi waat Modibo andi sax aji sooda ñu xool nan la ñuy def dimbali sama yaay loolu daal laa lay ñaan. lépp mën naa koo dékku pour atteindre ma day jafe yow nekkal sama wet rek li jëm sa côté yaay nag médecin bi li ma wax dégg Modibo ça va. ça va Seydou. alhamdulilah. maa ngi laal yaa. laal yaa ngay seet. bien sûr. laal yaa ngay seet. maa ngi laal yaa. mu ngi ci saal bi. merci. Nalia, ça va? Ça va. doom si bu baax alhamdulilah laali xanaa yëgoon ni mën a xamu di boo ça va pas dañu xuloo depuis lors yëg naa ko de say ndax kumba fi nga toog nii foofu la toog lu mu yàqul moo di ba nag amul loolu xëy na kumba moo koy def waaye man duma ko def peut-être que xol bu tàng rek moom moo ko jàppoon loolu moo tax mu doxalee noonu mm. waaye man kenn ñoruma yow yaa ma ñor parce que yow yaay sama xarit fii ci kër gi su ma jaaxlee yow rek laa mën a waxal donc jaaxal na ma trop pourquoi depuis lors waxoo si woowoo ma téléphone jéemoo ñëw jubóole ou quoi que ce soit say boo gisee loolu xam nga lu tax dama yor problème yi dul jeex mënuma ko booleeg di lijjanti yeneen problème et puis xam nga couple yi lan lañ war a bàyyi bu ñu xuloowee di xaar ku leen juboole le plus important mooy bëggante ngeen kon kay pour li régler seen problème yomb na xanaa romboo ko ci digg kër gi. ok romb naa ko ok. léegi c'est quoi problème doo dem nga waxtaan ak moom après mu jeex ngeen nekk ci leneen le plus important xam nga mooy lan mu mbëggeel bu nekk sa diggante ak moom. maa ngi dem. yaa ngi dem fan seen kër wala ci Mody ba. maa ngi dem wax ak ngi dem. il est dans la vocation de la femme d'éduquer l'homme par son regard son attitude et ses pensées. Elle doit l'aider à accomplir les actes les plus nobles et les plus généraux. am na loo xam ne jigéen moom la moom. te mooy l'amour ne vit que de confiance. Et moi, je ne vis que pour toi. kon da ngaa doon génne dem. ay mu la bàyyoon nga dem xam nga lu tax xuloo neex. jubóo. te dama am envie ñu bras dessus bras dessous dox. on y d'accord amoo looy nëbb ragaloo ko. Robin. waaw maa ngi ci buntu kër gi. exil exil. ok d'accord. li ma mooy bu ñu daan gisee da nga daan bëgg ñu gisee feneen fudul sa kër que mission bi may dawloo dafa xaw a sensible te fii euh, c'est pas prudent. ce n'est man mag la te duma magu cuune man tout se passe ici waaw kër gi fi mu toll nii man rek a fi ne. je peux dire man rek a fi ne sama jabar bi fi nekk mi ngi ci dund diggante dund ak dee te xam naa léegi mu dee laisse tomber elle est nouvelle. xam naa ni nouvelle bi ma lay indil moom nouvelle bu neex lay doon. tant mieux. Mangala. <laughs> Enfin te nga hmm. ma bëgg toroxal da nga bëgg yàq suma àdduna man maa la ci jiitu. dinaa la jaxaseeg àdduna dinaa yàq sa àdduna dinaa la toroxal ba pare récupérer sama jabar je vais récupérer ma femme et ma famille waaye man la da liggéey et que yow tu sauras que le moineau n'offense pas les princes dans l'azur la biche ne provoque pas le crocodile dans le marigot ne me provoque pas. Je suis dangereux, monsieur Mangan. Toi, tu fait un excellent boulot. te ku def lu rëy dangay am lu rëy di nga am lu say moroom dul am di nga dem fu say moroom dul dem di nga jot lu say moroom dul jot en un mot dinaa la def princesse sur des fractions de seconde sa àdduna dinaa ko changer. bu dee lii tamit doyul ma indi yeneen. non là tu un excellent boulot waaye yaa je content. que la photo là, ça me suffit largement. C'est Good job. kaay ma gunge la gisante ak yow. ça va soxna si. ça yaa ngi ci jàmm. bi may romb léegi dama la gis nga toog après may retourné waat ci salle la nga toog euh, mbaa du dara da nga am dem ma yóbbaale la wala. non du dara merci. Ah nga ñëw ma déposer la de. waaye génnal fii waay yow nga ne lan waxuma ak yow nga ne ma c'est quoi ça xamoo lan la lan moo sa yoon ci kii ba nga koy yóbbaale amoo koo yóbbu nga dem sa yoon kon yow laay waxal ah bon kon lii la kii nga may jëndee yow bul fàtte ne man bàyyiwuma la de yow yaa ma bàyyi ba par pare dama topp ci bedd yi pour lan la topp ma la dama doon ñibbi yow ba ma la bàyyee dama cee fekk si xanaa na mu ci yebu sala ku la ca ba mag nga jël la kon lii tax lii yambar bii nga may jëndee yambar bii kii nga may jëndee kon sa alal la eh sa yoon nekkul ci sa waa sama alal la alal ku sàggan ku farloo koy for jariñoo kan ma farlu yow doo jariñoo dara yow yow boo amee looy jariñoo nga dem xool leneen bu dee am nga jabar wala am nga ay doom wala je sais pas n'importe qui nga jariñoo ko kii sama alal la continue comme ça tu eh, yow rombal di yow laa wax eh jaaral waa yow jàmbarka laa wax jàmbarka eh Robert eh merci jaral mi yow jàmbar yi nga ñàkk fayda ñi ngi may jëndee du ma ñoom te ñoom du ñu man boo ñàkkee fayda man ñàkk ma fayda ci biir na ma def yóbbu ko.